Il y a quelques jours, les Chinois ont visité la phase cachée de la Lune. Il y a quelques jours, les Américains sont allés à 4 milliards de kilomètres de la Terre et ont, mis un robot qui nous a envoyé des images de la série. et, encore et encore, vous avez parlé des jeunes qui aujourd'hui vous ont montré des choses intéressantes, parce qu'il faut aussi le dire et aussi faire remarquer que aussi euh, l'invention, l'innovation, n'est pas chez nous, mais c'est aussi des difficultés, c'est euh, l'industrialisation qui nous a permis d'accéder à l'énergie et certainement aussi à maîtriser, avant l'énergie, l'agriculture bien entendu, mais aujourd'hui à faire de l'agriculture autrement et à produire pour nourrir euh, une planète qui, se, euh, qui, en tout cas se, se peuple davantage et en particulier nos pays. Et tout cela qui interagit et qui nous fait dire donc effectivement que ce monde n'a plus de frontières, et que oui, euh, il faudra certainement, même pour euh, sauvegarder son, son, existence, en tout cas en tant que société, euh, en tant que nation, avoir beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je, en tout cas d'imagination, de, d'imagination, et certainement aussi travailler à être au même niveau que tout le monde. Je pense que il sera impossible de sauvegarder même des cultures dans le futur si on ne prend pas en compte cette dimension numérique, on la considère donc au sein Donc numérique, on parle de façon générale, il ne s'agit pas seulement de, tout ce qui est technologie de, l'information et de la communication. Et bien entendu, les problèmes que nous posons à la planète avec les changements climatiques nous posent aujourd'hui cette nécessité de travailler tous ensemble, et ça a été le cadre de l'agenda 2030 euh, des Nations Unies, pour atteindre des objectifs qui sont les objectifs du développement, développement durable. Et pour cela, ici, vous, le voyez bien, euh, on ne peut pas exclure euh, de mettre le numérique à, bonne place. Vous pouvez, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer, c'est qui a les, les C'est pour aussi partager en même temps avec, avec les gens. Euh, donc, je ne reviendrai pas sur les enjeux dont j'ai parlé pour, euh, pour le monde, qui sont les mêmes aussi pour l'Afrique. Euh, mais en particulier pour l'Afrique, c'est la démographie, vous le savez. C'est aussi d'autres problèmes que je pense qui peuvent être réglés plus facilement. C'est tous les, problèmes, les, conflits, etc. la faible croissance, les problèmes économiques. mon point de vue, <laughs> ce sont des problèmes que presque subsidiaires qui peuvent en tout cas être abordés. Et il y a des exemples qui montrent qu'il est possible de faire différemment. Euh, c'est pas sur notre continent, mais en tout cas en Asie du Sud-Est, et qu'il est possible d'articuler. Et, cela, pour cela, il faut mettre certainement la connaissance, l'enseignement supérieur, la recherche, c'est pas la recherche qu'on produit de la connaissance, et l'innovation au centre des, différentes politiques. Parce qu'on a des défis, un des défis par contre que nous personnel, c'est la jeunesse de notre, population. 70% des jeunes au Sénégal ont moins de 30 ans. Et donc, il faudra assurer le développement de notre pays, il faudra euh, émerger, je dirais même de notre continent, parce que euh, là aussi, il sera presque impossible de développer le Sénégal si on ne développe pas des espaces plus larges, au moins l'Afrique de l'Ouest. Et il faudra, dans ce contexte-là aussi, beaucoup d'innovation. Et l'innovation, comme je pourrais définir, vous pouvez avancer, vous partager, comme finalement une nouvelle façon, parce qu'on a l'habitude de dire innovation, innovation, mais on peut séparer en fait les inventions des innovations. L'innovation, euh, n'a sens que si elle nous permet de mobiliser euh, finalement les facteurs de production, pour généraliser, avec aussi des, comment dirais-je, le travail physique, euh, le capital humain, donc un capital humain de qualité, afin de produire euh, de fournir des produits qui, sont, qui ont une utilisation pratique ou bien qui doivent être commercialisés. si vous innovez, si vous inventez que vous n'arrivez pas à montrer l'utilisation pratique, que personne ne l'utilise bien qu'on le commercialise, euh, on ne peut pas parler d'innovation. Et donc l'innovation, celui qui nous permet donc de travailler dur, de faire de la recherche certainement. Donc cette recherche qui va vers le développement Certainement, je, résume beaucoup de choses, comme vous l'avez vu, doit être notre priorité. Et en tout cas, c'est ce qui est affiché dans, la concertation, depuis les concertations sur d'enseignement l'enseignement supérieur, les directives présidentielles, donc la feuille de route de l'enseignement supérieur, la recherche, euh, pour donner une nouvelle à la recherche, ce qui nous est assigné comme tâche, c'est de faire de sorte que l'enseignement supérieur et euh, la recherche puissent servir le développement socio-économique de notre pays et donc ça ne peut se faire qu'à travers l'innovation. Donc l'innovation est importante qui certainement nous permettra de régler la, la question de la jeunesse. Vous pouvez laisser passer pour seulement vous montrer que notre pays progresse de toute façon de ce point de vue-là, euh, de l'innovation. Euh, suffisamment de ça, c'est pour partager et montrer donc le rapport euh, global sur l'innovation 2018 qui a montré que nous avons progressé en trois ans de six places mais essentiellement, ce qui nous fait progresser, c'est plus les extrants les intrants. Donc on a encore beaucoup de limites sur les, les, fondamentaux, en fait. Fondamentaux. Mais on a été efficace sur un certain nombre de choses, y compris le numérique et l'enseignement supérieur, e e, d'ailleurs, la production de, ressources humaines de qualité, qui font que nous arrivons à combler un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu faire avec seulement l'environnement euh, des affaires et l'environnement industriel et tey nag dañu am mbégte lool ci dalal fi waa Gaynde 2000 dalal fii ay ñoo xam ni dañuy organiser boobu ba tey lu ñuy wax lee mardis du numérique maanaam dajale nit ñi ne leen léegi dafa am ay xarala yu bees léegi doon ngeen ci xalaat ak naka la ko Afrique war a jëfandikoo muy ay xarala yu ñuy wax numérique ak internet bi ak ordinateur yi. nga xam ne léegi àddina bi yëpp moom la ñuy jëfandikoo Afrique nag ak Sénégal nag ci nga xam ne ñun dañu yàgg di góor góorlu ci jàngale dañu yàgg di góor góorlu ci lépp loo xam ne ci xam-xam la jëm lii itam di xam-xam yu bees fokk ñu bay ci suñu wàll fokk ñu góor góorlu ci moo tax nag bi nga xamee ni euh, mardi du numérique dañu ne dañ koy defee Thiès boobu ba tey Dakar lañ koy defee école doctorale université wu Thiès bi professeur Sall di diriger ne ñun loolu dañ ciy am mbégte lool. loolu moo tax nag tey ñu dalal leen fii étudiants yëpp ñëw waa ISM a nga fi waa UVS euh, a ngi fi waa université wu Thiès a ngi fi waa UKO a ngi fi ñëpp a ngi fi macha allah ñu dajale xale yi ndax il faut que xale yi xam xarala yooyu il faut que ñu góor góorlu ci. il faut que ñu xam ne xarala yooyu moo leen di dimbale pour ëllëg ñu mën am liggéey pour ëllëg tam ñu war a mën nekk ay entrepreneur voilà loolu moo tax nag euh, ndaje bi ñu dajale fii tey ci auditorium mu université wu Thiès am solo lool ci suñu université wante it ci école yi ñu wër yëpp nga xam ne euh, numérique momit daf leen soxal. Université de Thiès nag ñu ngi góorgóorlu bu baax ci affaire affaire numérique ndax Université de Thiès ci niñ koy waxee université wu métier la. Université la boo xam ne dañu am li ñuy wax ñeenti pôle pôle boo xam ne mooy pôlu science et technologie ñu am pôle agronomie ñu am benn institut universitaire ou technologie ñu am pôlu science économique et sociale am pôle UFR euh, de la santé. léegi nag pol yooyu yëpp fi mu nekk nii numérique bi dafa leen dafa leen soppi bu baax médecine mënatuñ ko def nañ ko daan defee avant numérique mbay mi agriculture kenn mënatu ko def niñ ko daan defee avant numérique science et technologie la même chose science économique et sociale la même chose moo tax ñun pôlu université bi ñeenti pol yëpp affaire numérique dafa nekk lu leen soxal lool motax yagul ñu organiser won fi ben ndaje ci wax affaireu métier wu ëlëk yi nan moy médecine u demain lan moy agriculture wu ëlëk ndax numérique bi taxna ba yoy yeb da fay soppeku université wu Thiès nak dafa xamné ne soppite yooyu il faut que ñu xam naka lañ koy doxalé il faut que ñëpp xam naka lañ koy doxalé ndax fiñu bëgg jëm ñu ñu ñu jëm fa waaw waa loolu nag jafe-jafe moom mën mënul ñàkk ndax euh, léeg-léeg nga am problème mu connexion wu internet léeg-léeg it étudiants yi bañ am ordinateur am na programme bu tudd un étudiant un ordinateur mooy dimbale université yi pour étudiants yi petit à petit ku ci nekk mën am sa sa sa ordinateur léeg-léeg it nga soxla ay euh, jumtukaay yoo xam ne dafay xaw a jafe yooyu it foog nga seet noo ko planifier ba mën ko din mën ko jënd ndax jàngalekat yi ak euh, étudiants yi ak ñi yore administration bi mën ko jëfandikoo. beneen jafe-jafe it mooy léeg-léeg nga indi tam machine bu bees wala nga indi jumtukaay bu bees fekk nit ñi miinaguñ ko foog nga fexe tam nu ñu demee ba ñu former leen ci ba ñu mën ko utiliser. jafe-jafe yooyu nag moom ñu ngi jéem a seet ndànk-ndànk nuñ koy mënee saafara incha allah. mardi du numérique yi nekk na li nga xam ne bu buñ koy taxawal luñ ci séntu woon mooy euh, mbirum xale yi euh, xarale yi nga xam ne dafa dafa laal fànn yëpp euh, au lieu ñu koy waxtaanee fànn par fànn lu dajale nit ñi. di ko waxtaanee pour ñu xam ne ku ci nekk li ngay def rek amal na njëriñ beneen secteur économie wala amal na njëriñ beneen acteur social euh, ba nga xam ne nit yi bu ñu xamee loolu dañuy mujjee dajaloo di def loo xam ne day jëriñ ñëpp euh, parce que bu nu fexee ba ku nekk di def ci wàllam rek tëju ne dafay jël numérique bi xool naka la koy euh, valoriser loolu mun na tardel suñu dëkk ndax dañ ciy def xaalis bu bari te dañ ciy am ay résultats yi nga xam ne day néew donc loolu moo nu tax taxaw si Mardi du numérique ba nga xam ne daal bëgg nañu ku ci nekk xam ne li ngay def daal wax nga xool keneen ki tam li muy def ngeen ànd defandoo ko. pertinence su thématique bi xam nga wàllum liggéey loolu moo jaaxal réew yëpp ci àdduna. te université réew yu kawe yi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, euh, daara yu kawe yi yi nga xam ne ñoom ñooy jàngal xale yi lu nu luñ ci jublu ñoom it mooy génn ay jeunes yi nga xam ne dañu dinañu mën a liggéey bu nu xoolee nag loolu dañu ne. Euh, sujet bi baax na nu xool ndax université yi ak enseignement supérieur ndax est-ce que ni ñuy doxalee méngoo naag li nga xam ne moom la jamono laaj euh, ci wàllu koom-koom pour que xale yi mën a am liggéey donc loolu daal mooy pertinence su thème bi dajale fi universitaire dajale fi ay jeunes ak des acteurs économiques mën ko waxtaanee ba xam yan fànn la ñu mën a euh, améliorer li nga xam ne mooy système d'enseignement bi pour mu jëriñ xale yi bu gën a baax ëllëg. waaw Sénégal nekk na réew boo xam ne man dama yàlla may na ma ma fekkee njëlbeenu numérique Sénégal bi ñuy commencé internet bi 96 mun naa ne jamono boobu bokkoon ci dëkk waxuma sax ci Afrique waaye ci monde bi bokkoon ci dëkk yu gën a ambitieux waaye nag topp nu ko dañu bàyyi numérique bi foog ne day doxal boppam loolu laay wax à chaque fois numérique boo foo ko bàyyi boo ñëwaatee fi nga koy fekk foog nga pousse ko état de ci am rôle bu rëy secteur privé am ci rôle bu rëy euh, secteur d'enseignement bi am ci rôle bu rëy donc Sénégal toll na fi nga xam ne fii ak juróomi yu nu jëm euh, bu neexee sunu borom sunu yëngatoo nu nu war a yëngatoo mun nañu taxawal euh, réew koom-koom bu kawe kawe ci wàllu numérique bi waaye nag loolu bu nu rëccee ah du nekk loo xam ne dina neex a dabu ndax yeneen réew yi euh, dañuy dem te numérique bi moom du loo xam ne da ngay tardé après nga ñëw dabu daal. waaw xam nga innovation ñaari fànn la benn bi day dem ci recherche fondamentale euh, yooyu moom nekkul sunu xam-xam xam naa ne ñu ko mën ñu ci def lu nu lu nu mën innovation bi ni gën a xalaat mooy bi nga xam ne euh, matière yaa ngi fi ba pare parce que technologie yaa ngi évoluer léegi naka la nga ko adapté ak sunu modèle économique ak sunu modèle social parce que boo xoolee li xew bitim réew. seen modèle économique ak seen modèle social la àndal ñun mënuñu ko jël rek ne dañ koy def fii donc mënatuñu nekk ci situation boo xam ne dañuy seetaan bu tubaab yi pare nu jël léegi doonu war a nekk situation boo xam ne dañuy tabax li nga xam ne mooy suñu njëriñu bopp ak suñu pexe bopp ak sunu xam-xamu bopp ak suñu koom-koomu bopp loolu tamit defe naa lu am njëriñ la